asalaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam euh, di ko gërëm di ko sant suroom suma sagoo ma jox kenn ku nekk ci yéen tamit loxo euh, gërëm ko sant ko ma bëgg tamit mu jàpp ni vidéo bi euh, naam vidéo boo xam ne danga ko yónni ci groupe wante ni ma bëgg ku koy seetaan jàppee ko mooy na jàpp ni moom laa yónni vidéo am na ñoo xam ne jot naa wax ak ñoom ñoo xam ne jot naa yónnante ñoom message euh, wante mënuma tontu ñëpp euh, moo tax muy def vidéo bi di ci jégalu nag di leen sant di gërëm li ngeen ma defal euh, mënuma ko defal suma bopp ñaan li ma defal mënuma ko defal suma bopp te bii gën ci ñaan mooy ñaan yoo xam ne làmmiñ beneen moo koy tudd jëmale ko ci borom bi Euh, ñaan yooyu la suñu borom na gën a gaaw nangu moo taxit suñu borom dégg na seen ñaan nangu na seen ñaan ba euh, yàggul dara xibaar nañ ma ni testé nañ ma encore plusieurs fois test yëpp négatif euh, mën naa génn dem fekk suma njaboot incha allah kon nag maa defoon vidéo wax leen tiis ak nattu joo xam ne sunu boroom tegoon na ma ko moo war a def ak vidéo sant leen gërëm leen xamal leen ni seen ñaan sunu boroom nangu na ko maa ngi leen di sant bu baax suma waa kër suma njaboot ñëpp a ngi leen di sant maa ngi euh, gërëm euh, kilifa yépp kilifa diine yoo xam ne euh, ñaanal nañ ma jàppale nañ ma muy kilifa diine ak aada kilifa diine jullit ak chrétien kilifa aada yi Euh, kilifa politique yi tamit autorité yëpp di ci jiital chef bi euh, di ko sant euh, di ko gërëm ci initiative yoo xam ne jël na ko pour kër réew mi yëpp nekk benn ñëpp ànd xeex Covid 19 bi di sant tamit autorité politique yëpp yoo xam ne nekk ci opposition yi nekk ci nguur ak société civile ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax mu bëgg nag beral ay nuyoo jëmale ko ci ministre bi ministre de la santé. ak autorité sanitaire yi ak personnel soignant bi wax dëgg yàlla euh, ay jàmbaar lañu euh, ñu ngi taxaw Sénégalais yi baax a baax a baax ñu ngi taxaw patients yi bu baax a baax a baax a baax ñu jar a jàppale la ñu jar a soutenir lañu maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di beral tamit ay nuyoo sumay mbokk kii du di leen sant di leen gërëm di leen sant di leen gërëm Euh, xam naa ni jaaxle woon nañu lool lool lool lool lool wante alhamdulilah rabbil alamin ñaanu réew mi ak seen ñaan yàlla nag na ko maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax kon nag vidéo sant rek la vidéo gërëmante rek la euh, bëggee nag jeexale vidéo bi ci suma engagement continuer xeex bi contre le Covid 19 di encourager tamit autorité yi euh, pour ñu gën a mën a anticiper ci crise bi. crise sanitaire la dëgg la wante am na crise économique boo xam ne mi ngi euh, ci ginnaawam kooku baax na lool ñu mobiliser wu euh, généralement nag mel nii euh, ñëppay mobiliser wu di xeex bañ a nag xalaat sortie de crise te day baax ñu mën a anticiper mooy encourage te chef de boo xam ne jël na initiative di recevoir nit ñi pour di wax ak ñoom ñu nekk benn réew mu nekk benn mu continuer euh, dialogue boobu pour ñu mën a continuer di waxtaan ci sortie de crise bi lu am solo la ndaxte kat impact bi mën na indi ay lorange yu am yu rëy rëy yàllañ ci yàlla musal kon nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàllu àq ñëpp wasalaam